samay daanelee nag di ñaan di leen ñaan ñoom ñu gore ba koy wax nag ñëpp di ko dégg mun nañu toog ba jeudi suba wala ajuma si suba ñu ne interdit nañu manifestation bi génne seeni char de combat dem teg fa loolu bokkul ci ngor te mënatuñ ko nangu ndax réew mi dafa am yoon dafa am ay charte kon nañu gore ndax léeg-léeg yooyu ñuy def mooy andi fitna bu ñu terewul woon manifestation ñu doon def ci mois de juin bi fii bi ñu tere bi ñu éliminer suñu lis bakkan du ci rot nit du ci gaañu nit du dem kaso ay citoyens yu jóg la dem wax seen naqar ñibbi seen kër kon lii moo ne woon kàddu yu ñu bëggoon sànni ci mbir mi di leen gërëm di leen sant